ak tey 2022 juróom ñaari xale rey nañ leen ci manifestation yoo xam ne yoruñu leen lay yoruñu dara loolu moo tax ma feddeel li ma waxoon mooy Macky Sall dafa am problème Casamance ndax président de la république warul doxale noonu benn pàcc ci réew te lii amul feneen fu muy am ci Sénégal waaye mu gën a garawati tey ku ñu jàpp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 defe naa du ma ne kenn amu ko waaye néew nañu ko am ñiy wax ñëpp bu ñu àndoon bawol maa leen ëpp mbokk bawol bu ñu àndoon siin maa leen ëpp mbokk siin bu ñu demoon sàllum noonu bu ñu demoon gànjool maa leen fa ëpp mbokk bu ñu demoon waalo maa leen fa ëpp mbokk parce que yàllaa ma may loolu ci ñi mu boole ci samay parents ba ma bokk fépp kon man mënuma am xalaat luy xaajale Sénégal waaye bu ma amee sañ-sañu taxaw fii Casamance wax li ma wax te doo dégg benn voix autorisée bu Casamance ku ne d'accord ma ak Ousmane Sonko parce que dafa doon sentiment bu profond fi bu nit ñi di stigmatisation bi te lépp ci nguuru Macky Sall moo tax Sénégal yépp laay muy kuy fuutaante kuy saalum saalum kuy bawol bawol kuy siin siin ak foo bokk na njëpp jóg taxaw jàpp loxo Macky Sall ci lii mu commencé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 ay mbokk la ñu loolu la ñu xam suñu wax Casamance buñ ko ramalee ci benn ethnie waaye dañ koy ñaanal fii am na quartier bu tudd Alwaar samay maam alpulaar yi ñoo ko fi sànc boo fa demee ñoo ko ëpp soo demee ay quartier wala quartier yëpp sax boobu mu tasaaroo di nga fekk mankaan di nga fekk mankaan mancaak di nga fekk olof di nga fekk séeréer di nga fekk keneen ak keneen loolu fii rek la am ñun amuñu problème yooyu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 mu aw ma lu ma jëndee xam tabaski keneen jógee fa la jëndal la xar tabaski tabaski weesu nga dellu si ne ko léegi danga may remboursé xar bi ma këlee jëndal loolu est-ce may leen li ñu fay ba pare weesu na il faut s'orienter vers l'avenir amee lu ñu kenn dara bailleur bi bu ñu interpellé dinañ ko fay tout de suite ci sa trimestre euh, semestre bi nga xam ne moo dugg parce que par six mois lañ koy fay kon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 ma fa waxaat ko fii léegi moom mos a yëkkati cinq millions en espèce di ko jox ay étudiants ñu dem di ko séddu bi ñu ne ñoom dañoo bëgg a defar ay lits superposés dama leen ne andi leen débit bi mairie di xool nu mu leen di jàppale ngeen def lits superposés waaye xaalis lu mu ko génne di leen ko def waaye nag comme mu ngi bëgg a andi coow décision bi ñu jël mooy bind naa la bàyyi ba pare jaare naa ko par huissier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 pour am ñetteelu mandat li Sénégalais yi bañoon Abdoulaye Wade ba ay bakkan rot te ñépp xam ni buñ ci tollee ba mu def ko mën na jël fitna bu rëy ci réew mi dana ko jël sax moo tax appel may lancer Sénégalais yi mooy loolu mun nañ ci musal suñu bopp Sénégal yi lay waxal loolu mën nañ ci musal suñu bopp naka lañ ciy musalee suñu bopp mooy tey jii la campagne électorale commencé bu soobee yàlla le 31 la ñuy wote bu Sénégalais yi wotee massivement pour opposition bi rawatina nag liste bi ma bokk man muy yeewi askan bi def intercoalition ak wàllu bu ñu wotee massivement pour ñooñu ni ko waa France defee ba Macron tey amul majorité buñ ko defee ba Macky ñàkk assemblée nationale coowal ñetteelu mandat jeex na Sénégal ma bamtu ko.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 am nga possibilité ci le 31 juillet yii ñu dëgmal nga xam ne ci la ñuy dem voté ji élection législative pour xam kan mooy téye assemblée nationale am nga possibilité boobu mooy su ngeen votelee Yewwi Askan Wi ci coalition bu mu ak Wallu ba jox ñu majorité absolue assemblée nationale coow loolu dina jeex ndax Macky Sall fi tudd ñetteel mandat at bi koy desee